juróomeelu xaaj bi ci juróom-ñaari xaaj yi ci jamono jooju nit ñu bon bare woon nañu ci dëkku sodom ak dëkku gomor noonu yàlla fas yéene sànk ñaari dëkk yooyu yàlla yónni ñaari malaaka ngir ñu wax loot ak waa këram ñu daw génn sodom te bañ a geestu noonu yàlla tawal safara ak tamarax ci kaw sodom ak gomoor ba ñu sanku ba lóot ak jabaram ak ñaari doom yu jigéen doon génn sodom jabaru loot daldi gestu ca saasa mu soppiku ab janju xorom léegi ma laaj leen fukk naka la lóot ak waa këram muccee ca sodom yàlla yónni na ñaari malaakaam ngir musal lóot ak waa këram ci mbugalu dëkku sodom